allo allo allo allo ban sox ñu lay nuyu jambar wa nice ñu ngi lay fay kay waaw ñu ba nga bëré ba léegi yaa ngi doo ñëw làmb waaw waaw bima bëré bëree ba léegi moom maa ngi doog a dugg si stade moom wax deug fa yalla waaw su premier sortie waaw non sama rak moy bëré bëre la mun ta ñak xam rek nit bisam la am quoi té nit mom boko xébalé bisam rek yow war nga xolaat sa bop parce que bis mun ta gëna mag bis bisu Ama balé ni muy tollu ci xolam bisu Pokola noonu lay toll ci biir xolam moom Pokola moo tax xam ma rek booy moom bu ñu xewlee day jaadu nga ñëw ci au fond parce que booy boo xewlee dañ lay jox lépp xam nga guddil la bëccëgal la kon ñoom bu ñu xewlee jaadu na ñun ñu bàyyi suñu lépp ñu ñëw waaw wax dëgg fa yàlla. bi ñu mujj nga def arène nationale ba léegi dafa ñu bëri leen yëm. waaw sant yàlla rek loolu du suñu njàmbaarte xëy na lu ñu suñu borom defal la rek dañ koy santaatee suñu borom bu baax a baax xam ne xëy na ñun jox nañ ñëpp cër. ama sekk nañu ñëpp jàmm te du ay làmb ndax joxuñu kenn cër pour nga faral ñu dañuy jox cër nit en tant que doomu aadama ak doomu aadama waaw moo bu ñu xewlee ñun loolu duñ ci xel ñaar ko quoi ndax sekk nañook ñëpp jàmm waaw bu ñu xewlee waa doon suba noonu lay mel bu soobee yàlla. bi nga bëree ba léegi dégg naa ne promoteur sonal nañ la trop fan nga toll. waaw waaw promoteur yi moom wax dëgg fa yàlla ñu ngi ñuy démarche bu baax sax waaw mais ñu ngi xaar rek ñu ngi xaar rek ba tey adversaire yi ñuy wax ñoom ñooy def nii rek. mais képp ku ci sotti ñu war a bëre moom rek ñun bëre moo ñu fi bàyyi waaw buñ taxawoon suba ñu war a bëre dañuy ñëwaat fii rek bëre. ko am soo xam ni jàmbaar ay combat soog lay bëgg adversaire de taille te ñan ñan nga gën a bëgg adversaire yan nga gën a bëgg. non ñëpp ñi fi nekk rek wax dëgg fa yàlla soxlawu ma kenn koo xam ne damay bëre moom ñu naan soq moo ëpp doole wala moo ko mën combat soog bi ma jugee bu ko gën a métti laa bëggaat barki maam Serafal waaw parce que yoonu ndaw la rek amul lu yomb suma adversaire franc di ko ñaanal ndam li jikko billaahi bari suñ Tuubaa. fan yii weesu fan yii ñu weesu ku mel ni Coly Faye sànni ay xeer kàddu yooyu noo ko gisee. non non non garaawul foofu moom garaawul defal code foofu rek ñu jàll ci leneen. sori quoi. non non non non. Ah. sa diggante ak Ama ñëpp xam ne dañ la jaaxal sa relation ban sa relation la. waaw suma waay la suma xarit la suma ami d'enfance la kii du ay làmb man képp koo ma gis ma jàppante ak moom rek jàppal ne du làmb moo ma boole moom ndax lii day jeex. xam nga tey am na suñu carrière fu muy toll dootuñu bëre CNG day nangu suñu licence luy continuer à vie moo ma gën a ñor loo xam ne benn laps de temps la rek. sa rak sa lépp ñëpp gis nañ booy bëree du am ci yow muy paa bi soq bu ndaw war a bëree le 24 juillet bi ñu dégg diggante ak Petit Lo fan nga toll ci waajtaay. waaw waaw non dañ koy ñaanal ndam rek ndax raq bu mën a sonn ci ay grand frère am la te aussi tamit ku jàpp ñàmburam la ku kuul ñoo bokk ndey ak baay mais du sigi sax xool ñu. loolu dafa jafe ci raq bu mel noonu ngeen tolloo bokk génération te du siggi xool la am na cër ci doomu aadama cër boobu mu jox doomu adama yi yàlla na ko yàlla suturaal rek may ko ndam ki muy bëreel tamit xale la ñoom ñaar ñëpp ay champion lañ mais su ma raq laa am droit ñaanal maa ngi koy ñaanal suñu borom defal ko ndam bu sedd guy waaw. combat bi dañuy xaw a lëlu waral. da see a dañuy lëlu ci combat waaw mais noonu la mbër bu bëggee mbër. waaw waaw mbër bu bëggee dégg daal yi day lëlu. te moom xale la gars yi am nañ ci moom yaakaar te li muy def mën na ko yàlla na ko yàlla suturaal rek defal ko ay ndam yu bari bari suñ tuwaa jaajëf kenn